Kalbin diyal yamanas Abdoulahi Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Koumba Sino moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ bi ginnaaw bu la nuyoo ziar la di la ñaanal tey sàkku ci yow ñaan ñu bëggoon a xam ci yow tuuti rek mooy ci man at nga feeñ jamono ak sa waajuru jigéen naka la tudd ak ñan ak ñan ak ñan nga bokkal waajuru jigéen. daal maa ngi gudd ñu lay 3 mars 1933 Mbacke Diop laa juddoo sëriñ Modou Baara it moo ma jox ab jàng maa ngi nekkoon sama kër Mamadou Fatma Tall Madou Fall Matal moomee ak Bintu Tall mu jur ko mutuum la ñoo bokk ndey ak baay Madou Fall Matal ci toolu bi sëñ Baara Mbàkke mu mag la bokkoon këram laa nekk maanaam ba sëñ Modou Baara xëy na jox ab jàng kër ñaan joobu la ma jox kër ñaan joobu maa ngi fa dem te ma juróom-ñaari at maanaam nekk fa ba mille neuf cent quarante laa dem ci loxo sëñ Mbacke Mbacke 1946 ci xëytal saa jógee ba mu deltee ci déwén laa dem ci loxo sëñ Mbacke Madina ñu ma bokkal ndawit maanaam mu di maam xëri laa bokkal ndey moom ak maam xëri Mbacke ak man Abdoulahi Mbacke mi ak ku ñax xeetu Mbacke noo bokk ndey noo ñett ñii noo bokk ndey sama way jurut bu fi sëñ Daara jógee jóor gi bànd géer loolu lañ ko jox ci tundoo bi fala nekkoon yàlla dogal nag fala amee benn doom yàlla dogal mu faatu sëñ Maodo Ba nag moo ma jox ab jàng ko fi ñaan Jóob ba ma jox it ah doom jooju nu mu tuddoon. kan fi ki nga bokkal waa yéen jigéen kon sant Lo. kon kon sant Lo. kooku moom dafa judd rek Fatou. kooku dafa judd Fatou. dama fi sëñ Ba la ñu Balla lañ wax sama yaay góor gi Balla Dior loolu doon jaay sëñ la maanaam moo jur moo jur moo jur Moustapha Ngagne ak naar Louga ñii si natt door ko dóor seen baay lañ joxoon sama wajuru jigéen maanaam mu am fa benn doom da yàlla dogal nag doom ji duñu faatu tel sama ndey booba la faatu muy at moo ne xaw ma nag man at waaye ko waaye noonu moo ma joxe ab jàng ci suñu ñaan Diop moo may moo ma moo ni wane sëriñ naa ko sëriñ ñaan sëriñ ñaan mu jur sëriñ Diop naa ko mu dund waaye sëriñ Diop moom at ñu ko bëtam yi dalee maanaam dafa wër doon ñaan ba dikk sëñ Modou Bara ba mu fa dikkee sëñ Modou Bara doon nañ kilifaam ba mu fa dikkee sëñ Modou Bara xamal ko ne ko dama ba yóbbaale Abdoulaye Mbacke mi boo demee nañ ko yóbbu ko Abdoulaye mu Dóoru Rahman mu sëñ Tuubaa nag moom la ko sëñ Baara tudd ba mu demee bu jub Dóoru Rahman it yàlla dogal na lu mat juróomi téeméeri meetar mu daje sëñ Abdoulaye waxtu weer weer muy doxantu ba ne demee fa bëkki néeg ba maanaam fekk fa bëkki néeg ba ñu laaj ko mu ne ñu dajalu leen kenn noonu ko enquête ah, dañu ne kenn mu ne sëñ bi bu jàngee ba ba weer mu mu tekkil na fekk ban teekale façon boo ko fa yànd noo teekale façon daaloon na ba sëñ Abdoulahi dikkee seen biir naan si boppam yóbbu moom sëñ Abdoulahi maa ngi si juróomi juróomi yetti at waaw ji man na juróomi maa ngi si juróomi yetti at mu ne kii loolu sëñ Baara Mbacke tudd mu yànd ba ngoon keroog ceebu ganaar lañ fa toogal ci jeexital guerre bi ba ngoon ni gontaan ñëw bii yàlla kërti ñaan jëm na fa laa maa ngi maa ngi dem mbulkaay mille neuf cent ginnaaw ko sëñ ñaan Diop. ginnaaw ko sëñ ñaan Diop maa ngi di loxo sëñ maa ngi ginnaaw ko sëñ ñaan Diop. maa ngi di ci loxo sëñ Mbacke Madina weeru barax li sëñ Moussa Diop ba si xëy laa di ci loxo sëñ Mbacke Madina nekk dama ak sëñ Mbacke Madina ñeent si cadre yu benn nekk nañ ko. sama mag yu ji moom du daab leetar boobu ba muy di ci loxo sëñ Mbacke Madina maa ngi si kàtt yàq sama mag yu jigéen maam sëñ maanaam maanaam moo ko yar ndey sëñ Mbacke Madina moo ko yar maanaam ba tax moom bi mu weesoo boole ma ak sëñ Gassama Madina booba xale laa ma dem ci loxo sëñ Gassama Madina ma fi demee am naa fa am naa fa ànd ma ak sëñ Gassama Madina ñeent fukki at yi maa ngi si benn dégg nga wax de maanaam ba mu fi jógee fanweeri at la ci ren ji ñu juróom-ñaar fukki at yi maa ngi ren lii daal ci sëñ Gassama Madina laa ko nekk ci loxo moo ma yóbboon bul kaalit ma nekk faat man man Abdoulahi Bakki mi ak sëñ Abdou Baaxam sëñ Massamba mi faatu ak sëñ Cheikh Alfa Fall ma faatu ak sëñ Moussa mii boo fa jógee it maanaam maanaam ban ko bokkee na ci benn maa moom ak ak Waxa ak ak ak Cheikh Abdou Fall ma jóge fa man ta ma jóge fa am nañ fi benn ba ñaar fukki at ak ñeent ñu ñaar bokk bu lal ñu ñaar bokk bu lal ba ma fa jógee it moom mu dem jàngaat ma dem man ma dem njooleen ba ma demee njooleen sëñ ma dem jàngal na ma ci mu mag ma sëñ la doon jóg jàngal na ku ñu wax xaati sëñ la waa daw na jàngal na ma maanaam ku ñuy wax xaasaa na ma sëñ Abdoulaye moo ko jóg moo koy mujj a toxal andi ko Touba Belel gii waaw xaasaa si waaw xaasaa si sëñ Abdoulaye moo ko mujj a toxal ngay ko andi andi ko andi ko Touba Belel gi ba fële nekk ba faatoo ba ma jógee nag maanaam ma ba ma jógee nag man mii nag laa di kaat Madina maanaam maa ngi ci fukki ak juróom-ñeent ba gannaaw bu ma jógee daara ba ñu gis fukki at ak juróom-ñeent donc ba fi mu toll lu ma xam ci maanaam lu ma xam ci maanaam ci sëñ Touba ak lépp sëñ Mbacke Madina moo ma am nañ leen fukki at yu manqué benn am na doo fi ñëw tam yaa lu ma xam ci sëriñ Tuubaa ak kilifa yi ak yoonu murid lépp ci sëriñ Mbàkke maa dinaa ko xam keppaaram xam naa ci yoonu murid loo xam ne bari na ko fi mbooloo topp te li ma xam xamoo ko ak mbooloo ma ñoo topp ndax lépp dafa mujjoon ba ci loxo sëriñ Mbàkke Madina te sëriñ Mbàkke Madina am na ndiw yoo xam ne daanaa ko fekk ak ndiw yoo xam ne du ma ko fekk ak ndiw yoo xam ne dañ ma ci boole ak ndiw yoo xam ne du ma ca boole loolu daal am na ci ñoom xam naa ko moom. say say doomu baay moom ñu nga seqal Cheikh Mamadou Lamine Bara. waaw am na ci ñoo tudde doom yow. am na ci yow ñoo xam ne yow yaa leen yow yaa leen tudde doom. waaw tudd tudd naa ci sëñ Bara Mbacke laa tudd doom bi laa jëkk tudd doom. dégg nga waaw. am na tudd naa sëñ Abou Mbacke. tudd naa sëñ Abdou Khadim. tudd naa sëñ sëñ Abdou Laat. tudd naa sëñ Moussaïn. tudd naa sëñ Abdou Aziz. sëñ Mbacke moo ma ñëwoon tuddee ko am tuddee ko nga gis ko ma ne ko dee noonu mën ma tuddee ko te bu feree nga jox ko moom moo ma ko wax ci lamiñam ma ma maanaam tudd naa it su Cheikh Soro doom Cheikh Soro suñu ñaari maam bokk ndey ak baay Modou Fatma Tall Dum Tall nga bokk ndey ak baay nii la dem ci mbind yi tim amoon nga fa kër waaye dama ko mis waaw góor ñi amoon naa fa kër bañ ko liggéey kër googee booba aw ma doole ji ma ko defaree dégg nga maa Cheikh Soro no su sowoon kër booba aw ma doole ji ma ko mën a defaree te mosuma teg sëñ Mbacke mel ni benn soxla boo xam ne daa janoon man sama jano mu ne ko dama bëgg nangam te mosuma boobu aw ma doole bi ma ko defar moo tax Cheikh Thioro joxe kër googee yi la dama Cheikh Thioro yéen a bokk moo ma mag yéen a bokk wàllu eh, su ñaari maam daal bokk ndey baay ci jur ndeyam moom mooy Modou Fatma Tall kii sama ndey mooy Binta bokk bi ngeen bokk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. ak bi nga xam ne a ko bokk ci wàllu waajuru jigéen. waaw waaw loolu laa xam ne ci moom. ba seero ne daal maa maa maa daan suñu ñaari maa ma bokk ndéeg baay. noonu noonu la demee. ginnaaw foofu itam naka nga def ba sëñ Mbacke Madina jëlee la Madina yóbbu la fële nga xam ne moom mooy xombal mooy jëlee la Madina yóbbu la xombal. waaw ba tey yàlla dogal na. sëñ Mbacke Madina dana dana ne woon. wax boo bëggee soxna maa nga ma ko yëgal ndax ko sëñ Daaru Mbàkke day maanaam maanaam mbooloo leen waaye mel na nga moo ci féete man loolu la ko waral it bëgg goo xam ne sëñ Daaru bëggoon na ma ko man sëñ Mbàkke mag mi boo fu mu nu masaa joxe maa seex dana ma woolu sëñ Mbàkke mel na fu mu fu mu nu masaa joxe maa seex dana ma woolu loolu la xam naa la ma yàlla indi loolu la ma yàlla indi ci sa loxo kon nag léegi ma kon nag léegi dama bëgg waxtu boo bëggee toon nga amaana nga leeral ma yàlla dogal na nag it am na ku ma jëkkoon bëgg it yàlla bëggulu ko xelum ko rek na ma boobu it ba mer naa ko gannaaw bi nag ma dem toog ci sëñ Abdou Aziz mu laaj ma ni ndax amagu ma soxna wala amagu soxna ma ne ko amagu ma soxna sëñ Abdou Aziz xamal na ni ma waxtu boo xam ne yàlla dogal na am di kilifa da ngay nangu ñu wutal la sa soxna si jot ba ma dikkee sëñ Bass ma di ma ne ko boolem ñu ma weesu woon maa ngi koy tuub maa ngi koy rëccu léegi koo ma taamul fekk naa la mu taamul ma soxna suñu wax Rama Jéy ma ma maanaam jox ma ko dana amee indépendance ci diwante laa samp kër dana amee indépendance ci diwante dama suñ daak maj mi sampal kër toog na waa si maanaam ab diir boo xam ne damaa laaj foo bëgg a dëkk man ni ko tay mum fenn foo ma foo ma doon rek naa la fi mu maanaam mu andi ma door rahman a nekk benn bisi mu wax ak njëkk sama xarit woon ñu daa ñu njëkk dama bëgg nga laaj ëpp bi su mu bëgg ma doon ko fa ñu reer ba noppi njëkk wax ma ko ma ne ko teew moo kenn su ma doon rek fekk naa ko de mu bàyyi ma doora man gën a nekk sa ji xamal ma ni ma nit mënul fenn ko a daa bëgg nekk ci dëkk bi nekkal na fi nekkal na fi nit mënul fenn ko ne ma ne fi daa bëgg nekk ci dëkk bi nekkal nekk seen dëkk bi lii moom ma bàyyi doora man ma ne ko man de wax yàlla damaa def nit koo xam ne damaa toogul mu ne ma bu dee loolu da toog moo ma bett fa Daaru Rahmaan gee ma nekk bu ma màggatee ak fu mën a jëmit Daaru Rahmaan laa xam moom laa bëgg fa la ma yàlla fi doon muy Daaru Rahmaan gee a sëñ Mbàkke mbat mi doy loon ginnaaw Daaru Rahmaan sëñ koo fenn yow wala wala nga nekk feneen xam ne bu ko Daaru Rahmaan mooy ginnaaw Daaru Rahmaan daal am am sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke jox na ma doomam jox na fi ñaari pàkk ci Touba ñaari pàkk benn ba nuurlu naa ko ba mu nekk benn bun ma defar lu maanaam benn ba jox naa ka sama doom muy Daara Mbàkke da nga wax naa ko sëñ Saliou Mbacke joxoon na la fi juróom-benn pàkk juróom-benn pàkk yi gannaaw bi fi sëñ Saliou jógee lësis am na ca ba ñeent pàkk laa joxe ñaari pàkk dugg na ci maanaam ñu ngi ci bàyyi woon gannaaw jëriñu ma ko waaye yi ñeenti pàkk yi moom jox naa ko sama sama njaboot juróom-benn pàkk dama joxoon dama doon laaj soo bëgg ma ne ko daal ma ne ko yoonu maanaam mbàkk bi moom a gënal ñu boole maag Saliou Cissé Saliou Jaxate moom Saalu Jaxate la ma booleel ba moo sës yoon Saalu Jaxate la ma booleel noo àndandoo ba ndebe mu jox ma ma ànd ak ku ñuy wax maanaam Abdoulaye Sène ma nga dëkk Ndiané moom laa àndal leen maanaam mu Abdoulaye Sène jël takk boobu mu dem pàkkee Saalu Jaxate jox ma ko jox ma pàkkee wan ma ko mu juróom benn pàkk jox ko sëñ Wéru Mbàkke juróom juróomi pàkk man juróom benn pàkk la ma jox jox sëñ Wéru Mbàkke doom sëñ Mbàkke ma ne juróom pàkk noo bokk benn buloo loolu daal sëñ Saalu defe na ko bi mu daate bi mu daate génn àdduna tudde nga ko doom sëñ Saalu tudde naa ko doom waaw loolu daal am na sa diggante ak say doomu baay mooy ñi nga xam ne ñoom nga seqal si moom du la ñuy baara. ñu ma seq sama daay maanaa si nu mu demee. daje yi ngeen di def ak gis ah, yi daal maanaa dëkk man Mbàkke Kajoor dëkk mi yómbi na waaye ndaje ma xew sama leer ma ne maanaam ma ne yëg naa ko war faa teew danaa fa teew ba am naa kër Mbàkke Kajoor boo xam ne samay doom ñoo ko miiral mu di maam jaara ak ñoo ma bokk néegu ndey ñoo ma ko fa defal muy ñaari fàtt la ñu fa dëppaleel ba suñu tool bu ma di ma bokkal bàyyi jàmm ak salaam la moom laa seq ñoom it ñi ma bokkal sëñ Daaru Mbàkke ñu daay sëti sëñ Daaru Mbàkke it jàmm ak salaam ak lu rafet dong laa seq ñoom ñi ñu sëti sëñ Daaru Mbàkke yëpp jàmm ak salaam ak lu rafet laa seq ñoom ñi ma bokkal bàyyi Sidi Maxtaar it am na lu ma waxoon it fekk naa ko ngànn xumma Sidi Maxtaar ñu xamal na ni ma bi fi sëñ Baara jógee moom Sidi Maxtaar way juróom ñu jigéen ak suñu soxna ma ne ko def ak sama yaay Kumba Fene Lay ak soxna sant Diop ñoom ñeent ñi Mbàkke Kajoor la ñu muuroo fa la liggéey la sëñ a ku ñu xam ma ko dakaate tool bi sëñ bu mag boo xamul jëng ko moom la moom moo leen fa nekk amee leen fa ba ñu muuru ba suñu ko lii daal Sidi Maxtaar wax na ma ko man seen ngaan na ko ma nee na ma daal moom Sidi Maxtaar Mbàkke ci boppam way juram ak soxna Mariama Kebe bu sëñ doon denc moo jur Seex Mariama Kebe ma faatu moo jur taw sëñ Daara bi ñu joxoon sëñ Mor Abdou Sëy soxna Mariama Kebe moo jur taw sëñ Daara Mbàkke bi ñu joxoon sëñ Mor Abdou Sëy na ma lii way Kebe ak sama wajur jigéen ak soxna sant Diop boole leen ak Mako Dakar ñoo fa nekk na fa lañ muuroo ñoom ñett ñi fa lañ muuroo Mbacke Diop maanaam ba ba muri fii bi Massa Mbacke daal xamal na ma lii moom fekk naa ko ngaan na ko mu leeral ma lii ñu daal am na moom ñi ma bokkal bàyyi nag it wax dëgg yàlla jàmm ak saam ak sëti sëñ Baar yi ndax wax dëgg yàlla bu fekkente ne maanaam seen xam-xam bari na ci bari na sëñ Modou Baar it xamuñ sëñ Modou Baar lu bari ci sëti sëñ Baar yi laa ko def xamuñ sëñ Modou Baar lu bari ñoo ko ci xam da nga wax de sëñ Daara Mbacke ñu ñu ay sottam te nekk ci kaw suuf ñi ci xam sëñ ñi ci xam sëñ sëñ Modou Bara Diakhou moom bëriwul ndax fekk nañu ay gone li tax ma laaj laaj boobu mooy suñ mbàkke Madina daf la doyal euh, xombal euh, ñi la xam bariwul ñu baree bari sax ci at yi rek lañ tàmbalee xam sëñ Abdou Koumba Suuna muy làqu bi nga làqu moom moo war lool loolu moo tax rek ma laajoon lii ba xam ñoom itam ba nëgë ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi xam bu baax sëñ Abdou Koumba Suuna am na ci ñoo xam ne ñu ngi may topp rek di fa jaar ak ñoo xam ne xamuñu ko am na ñoo xam ne xam nañ ko ma maanaam li ma yàlla dooru ko dee sax na man am na ñoo xam ne xam nañ ko sa ci sët sëñ Baara jaar am na ñoo xam ne xamuñu ko baa buñ xamuñ doxaluñ ko wala xam xam nañ ko waaye doxaluñ ko tey nag xëy na loolu lépp nag meloo adduna ak meloo jamono bi ñu leen jàpp xëy na am nañu barke wala wala leneen te loolu lu yàlla dogal la xëy na moo leen réeran si boobu waaye man daal soo mel ne que ndigal sëñ Mbacke ma da moo fa bàyyi man daal mooy lu wér jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf daal mooy lu wér waxtaan wi ñu seqoon ak sëriñ Abdou Koumba Suuna mm, ci bisub alxamis fukki fan ak ci mois de novembre ci 2014 tombeegoon itim muy bisub màggalug daarul Kudoos di alxamis fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ci atum 1436 ci gàddaay gi waxtaan wi. lañ seqoon ci bis boobu ci foofu muy nekk ci biir kër Serigne Mbacké Madina ci 2014 jeudi 13 novembre 2014 jeudi 19 muharram ci atum 1436